ak El Hadj Ahmed Aïdara wuup Macky Sall ngay yuuxu sàccay de bu ñu sukkandikoo ci tribune yéen kaay procureur spécial Alioune Ndao waaw nekk ci tribunal bii nga xam ne kon dañu koo taxawal ngir muy saytu kon alal joo xam ne setul lewul waaw juróom ay fett la sandi la ilaha illallah juróom ñoo xam ne kon ministre la ñu woon ak ñaar ci ay directeur général nguurug Abdoulaye Wade ga la gendarmerie kon dana leen déglu Le Soleil yéene kaay ne ñoom juróom ñaar yooyee yàpp nguuru Abdoulaye Wade gi kon la ñu nekkoon Le Populaire ne maa lay jox seen tur tey Omar Sarr gendarmerie kon dana ko déglu Abdoulaye Baldé gendarmerie dana ko déglu Madické Niang gendarmerie dana ko déglu Samuel Sarr gendarmerie dana ko déglu Tahibou Ndiaye gendarmerie dana ko déglu Doudou Diagne gendarmerie dana ko déglu Karim Wade gendarmerie dana ak juróom ci rek novembre la la pays au ne Karim Wade day mi ngi ci yoonu Ndakaaru gi kon di ñibbisi ah Karim Wade ne fu ma mën a ne damay wuyu ji bu ma sama justice su réew wooyee où que ce soit je répondrai à la justice de mon pays day fara Wade njaak dara Wade njaak lii direct info ne alal ju salte jëla gaa yi di xeex de le populaire ne ñii ñu ci tudd boo sàgganee danañ leen tëjoon juróomi at jàpp kon fukki atu yàlla maanaam ko ca takk waaw te danañ la amande tam xaalis boo xam ni mooy ëpp fuuf wala mu tolloo ak la nga sàcc direct info ne leen demul ñu des ca la ñu bokk maa la wax lii le pays au laajee procureur spécial Alioune Ndao ne ko ndax kilifa diine chef religieux yi marabu ndax kon danañu wuyu ji procureur bi ne bépp kilifa diine goo xam ne tribunal bi kon am na ay preuve di ay firnde yu leer ne alal ji lewul un danañu la topp la ilaha illallah yoo ak buur moo xam kon askan wee la magistrat nga wala officier de police nga wala ci wàllu yoon ngay yëngu ci gàttal daal képp koo xam ni kon yaa ngeeg alal de sa alal joojee fa mu jugee kon setul un danga indi ay gindi la ilaha illallah wal fuk remplace jaxal na kon masinam baa jaxal na masinam baa ngay jax-jaxi réew mi quotidien gaa ñi kay ah seenu ndorteelu xiif dikk na xiif ga la faim f a i m askan wi nag xiif nañu lool la soleil yéene kay ne dund ko seer goo gee nguur gi kon farata la ko def réew mi quotidien Macky Sall day daa mer bay bëgg dee ah ba pare laaj na kon premier ministre Abdoul Mbaye mu indil ko ay gindi ci la bay ndeyu weeruk avril ba ñu ne dund gi kon danañu ko daldi xidéen gars kon respecté ko le pays au quotidien ne Macky Sall ci milliards lay wut parce que fi mu nekk nii réew mi tar na ba mel ni tiiraayu bàmmeel mbir mi kon mitti na lool yéene kaay gi ne nguuru Macky Sall gi kon daa bëgg a wax ne suul bukki sulli bukki daal la bëgg di dunde lépp xaalis kese woo xam ne kon mënta ñàkk ah parce njëkk nañu koo def weeruk juillet bee ñu passé waaye kon mbir ma daal la joon bii mooy ñaareel yoon gouvernement wu Abdoul Mbaye mii jàkkaarloo na fi nekk nii ak maral ak xiifal goo xam ne kon maara day taali malaise économique lii daal ci kër ci benn hôtel jarul ñuy tudd ba bu ñu sukkandikoo nag ci kilifa yii juróom fukki milliards yee nga xam ne moom la ñuy wut waaw nee nañu daal ci kenn termine yéene kaay te jamono yoo xam ne waaw jagleelee ko ñu nekkoon ci nguurug Abdoulaye Wade ga sant ba de ndaxte Saara Mbundu kat sàkku na ci premier ministre Abdoul mii mu tekki ndooma tànkam di Samuel Sarr ne waaw waaw bañ a tekki ndooma tànkam parce que Abdoul Mbaye moom la njabootug ñu loru kon démocratique sénégalais day dañoo fas yéene jàkkaarloo ak nguuru Macky Sall gi lay defante kon ba mu teree bien ndax ñoom jàpp nañ na nguuru Macky Sall gii ay nit ñuy fayu wante leen dañuy fayu ay revanchard lañ moo tax ñu jóg bëgg a tilimal leen yàq seenu der wili jéebaane leen ñoom kilifay nekk ci PDS lii daal tax na ba ñu ngi woo kon militant yëpp ñu jóg taxaw ñoom waa PDS ngir dugg kon ci biir xeex ba comité directeur bi daje démb Séy seen après moom laal na cax da koo nangu ay ava yu graaw la premier ministre bi daa war a kon tekki ndomba tànkam ndax tudd nañ ko ci yeneen i mbir yoo xam ne kon yu salte salte la Le Quotidien yéene kay ne premier ministre bi Abdoul Mbaye day tuumaalaat nañ ko wàllu njuut njaaj mbirum escroquerie faux et usage de faux la ilaha illallah la ilaha illallah Abdoul Mbaye moo mais dana jàkkaarloo kon ak attakat bi fukki fan ak juróom ci weeru novembre te lay indi kon coowal Abdoul Mbaye moo mais bi mu nekkee directeur général Attijari Wafa Bank coow la doxoon ca digganteem ak Abdoulaye Jakite la cassation lañ dem de la wax li xaalis ba boo ko ëpp na daanaka benn milliard ak ñaar ci ay étage di ay immeuble la ilaha illallah le pays au quotidien ne ma ne bu leen am mbetteel laa wax bu kilifa yi nga xam ne ñoo jege Macky Sall te bëgguñu woon ku laal Abdoul Mbaye temps yi boo leen gisee ñu attaqué leen am kon ab mbetteel ah waaw parce que kilifa yi xam ne dañoo jege Macky Sall lool nee nañ Abdoul kaddu yi nga xam ne kon yëkkati na ko ci xaalisu i Habré boo bee daa méngoowul daal ak seen yoonu yokkute gilee premier ministre ko ñi ñu bëggatul kay mooy géwél yi nga xam ne ñoo nekk xew xew-xew yi buur di organiser di cérémonie officielle yi di ko toj Walf Grand Place ne ñoom laa jaglelee moo ñu soof ji dee jëwe ci république bi Abdou Diouf amoon na bosam Alaaji Mansour Macky Sall mi ngi ak bosam Farba Ngom te ñi ngi xam le ne barki dee mboo njaay bi ñuy joxante leen RTS koo gee jëwelu Macky bi da doon manqué respect journaliste bi nga xam ne kon moo yoroon xew ma ah ma ni lan la jëwel yii di def kon ci affaire sérieuse yii ci république bi ba tax kilifa gu ne yow daal bokk sa jëwel mu lay taggal sa juróom-ñaari maam daal lii leen jàppe ne ndeysaan mooy république c'est nga xam ne kon toggukatu ndawal professeur waaw léegi soppeeku nekk ab reporter yaakaaram yëpp mu defoon ko ci Idrissa Seck daal ngir nekk géwélu Idrissa Seck gis nga léegi Xaadim Samb soppeeku na ba maara day taali ëlbati kon mbub ma mujj soppeeku nekk ak apériste dem far ca APR bu ñoom Macky Sall suñu kilifa yi nag lii la ñuy encouragé kon di ko dooleel nit ñoo xam ni kon fomp ay dàll kese la fi nekkee nee xalaate Walf Grand Place ay wax du samay kàddu dee yéene kaay gi ne a def daal mooy jël géwél yii leen ci yii parce que république bi ci boppam kon soxlawu leen dem suñu làmb ne Eumeu Sène de xaaram bi muy xaar nii mooy bëgg a yàgg moo tax it commencé na dànka fukka nga de Eumeu ne waxtu wee ma xaarul laa la wax temps bee ma xaarul bu Balla Gaye di keneen Balla Gaye da am na keneen tafaatin roxee caam ci tous les sports ne tafaatin day diggante ñeen fukk ak juróom fukki million ak trip maa wax li le suñu làmb ne Balla Gaye da dinaa juboo ak waa Bawol mbooloo contrat bi nga xam ne roi des arènes kat dana bëre ñaari yoon weeru mars prochain yéene kaay gi ne Aziz Ndiaye de <laughs> gàtt de maa la wax li dana a saf papa sow ma Baye Mandione Aziz Ndiaye ko tëgg Sa Thiès Malick Niang Aziz Ndiaye ko tëgg Balla Gaye 2 Tapha Tine Aziz Ndiaye ko tëgg jëy lii alaaji man de ñi ma yaakaaroon ci ñoom bu ma leen di xaar du ma lekk ah waay yow maa sàmba may taluma ndax Dakar live keneen ko moom damay bañ a tudd tani xaw ma bugga bugga nanate la sax bugaan waaw kooku moom kooku <laughs> damay bañ a yeggale ñu ne ma jëlal say bagaas taluma